siiw du jàmmi boom maa xam dara lépp lu yëngu yow la fan yi passé gisoon ngeen Ousmane Sonko ñu ko gisoon mu taxaw mm-hmm. ba ñenn di naan dafa daanu lu mel ni malaise ñi naan affaire mystique la mm-hmm. yow lan nga ñu ci mën a wax ndax coow li bëri na fi mu Ousmane Ousmane Sonko mm. ku koy kuy wax moom di ko conseillé nee ko na jóg ci boppam na jóg ci waaw bu mu tëdd di nelaw de. bu mu topp mbooloo mi ak mbaboor mi ak wax ji. na làqatu ci ruq jog ci boppam. maanaam c'est-à-dire loo bëgg a na defaru na defar ci yaram loo xam ne dana ko musal ndax de ah ñi ngi koy guddeel ñi ngi koy bëccëgal lu wér nag laay wax man kenn mënul ci man dara ku man na jéem. Ah, xanaa ku repp nag waaye li wér te wóor mooy ñi ngi koy jéem Ousmane Sonko man xaw ko xaw mais jamono yi nga xam ne ci la nekkee ci jafe-jafe mi sama borom rek moom ma tiim wéet naa ci ruq rëkk rëkkaat pour suñ borom musal ko te loolu am na résultat waaye jamono yi may wax na jóg ci boppam ñi ngi koy guddeel ñi ngi koy bëccëgal junj nag doy na borom xel. bu mu mhm. topp mbaboor bu topp wax ji saa yu bëggee am résultat baax jot ci li muy yóotu. Mm. na làqatu ci ruq toogaat as ndiir ne ci boppam. su ko defee. borom mm. boromam mën na koo musal. bu du loolu nag. Mm. ah saay saay de bari nañ. te booy xeex ak borom doole nag. Mhm. waroo toog de. te réew mi dafa jaxasoo. politiciens yi nañ ragal yàlla. àdduna bi day jeex de. àdduna bi day jeex. te nguur gudul jeex nag amut. Mhm. saa yoo toogee ci nguur ba mu neex àdduna bépp wër la nit ñi duñ la wax dëgg. nanga teyaat xalaat sa borom te nga xam ne bis day ñëw xanaa xamoo ne toogaay bi lu mu gën a yàgg booy wàcc day gën a metti rek. jërul metti suñ borom jox na leen teraanga. nañ dal te mhm. jéem a rafetal li des ci dund gi te yërëm nit ñi.